man xam naa ko sama xarit la. waaw mais yàgg naa ko wax ne ko yow entrepreneur nga dangay liggéey am na yoo xam ne waroo cee fés waroo cee dugg. parce que yow ndaw nga. mais am na ah, non non non attends attends attends man dama lay wax rek déedéet buñ ne koo tooñ. non déedéet attends kenn non nañ waxtaan rek nañ waxtaan rek. waaw nañ waxtaan rek problème la. Eh, xam nga dañ koo tooñ. Eh, kenn mënu ko wax. si. non attends. ko tooñ atteeguñu ko. yow déglu woo ko xamuloo lan lañ ko wax kon bu ne dañ ko tooñ. non ni nga waxee ni nga waxee moo tax mu ne la dañ ca tooñ. man dama ni nga dañ bàyyi leen def leen dara. man dama ne waa nañ bàyyi loolu sax mais dama ne la. man man man bi moom. c'est avant que dalay xew. Mhm. moom mënoon na bañ a dugg ci li. d'accord d'accord alors. sëñ Touba sax am na li nga wax ni mooy loolu rek Euh, dix minutes dix minutes chrono moo ñu des ci dix minutes chrono yooyu dañ ci war a épuiser le cas Karim Wade di ngeen ciy joxe très rapidement seen euh, lecture euh, son son son son son sa candidature qui est irrécevable ensuite ñu dugg ci ponk yi nga xam ne moo mujj très rapidement dix minutes chrono la ñu am biram Khoudia très rapidement affaire Karim Wade moi mm-hmm. il y pas de sérieux ci biir xaar ba au dernier moment nga dem changer ak la complicité la France man bu doon man la man maa koy euh, euh, porter euh, comment ça s'appelle recours mhm. je ne le ferai pas parce qu'il est de l'opposition waaye nag li mu def aussi dafa doon lu dooy waar lu nga xam ni il n'a récolté que ce, ce qu'il a semé parce que bi muy déposé xamoon ne double nationalité il fallait s'y attendre d'accord euh, man de France moo éliminé Karim man dama am sama benn xarit PDS la nekk. Mhm. bi ma déggee affaire bi ma ne ko Karim de man damaa jàpp ne Wade jurul doomam parce que man jàppoon naa ne def na lépp ba mu des cuune. Mhm. Amadou Ba mii mu ciy taqal bay attaqué Thierno Alassane Sall Thierno Alassane Sall dafa beneen bi li mu ci teg moom xam na ñoo xam ne naa nationalité lañ am mais loolu bu ko xarim Karim xamee te waxu ko affaire laste la Sénégal dañ ko teg ci ay cëslaay gis nga moo tax Wade sénégalais war ko gërëm. moom mi indi loolu ci suñu loi bi pourtant Senghor indiwu ko keneen indiwu ko Amérique dañoo dem au delà de loolu te man boo gisee man bu weesoo sariyan fee laa ko tege mais yoonu àdduna yi bu ma ci gën a respecté mooy loi États-Unis parce que seen constitution ak ni ñuy dundee ci seen biir dafa ma neex ñoom bu sa ndey dee américain ak sa baay te juddoowoo Amérique doo fa jiite parce que gis nga wàllu réew même boo demoon tey di jël nationalité américain Sénégalais wala benn béninois sans question yooyu ñu lay jàngal boo ko mokk mokkalee wala nga pecc dara foo jaar bëgg Amérique même boo fa juddoowul parce que da ngay yëg ne liberté moo am fii degam Amérique moom moom moo dem ba wax loolu Abdoulaye moom it ñëw dimbale ñu ne il faut être exclusivement sénégalais loolu mooy dëgg parce que conflit d'intérêt mën naa am Abdoulaye Wade euh, Karim Wade foofu man bi may nekk en 2018 ba 2019 7 janvier maa ngi la ko yónnee keroog 2019 fekk na mu renoncé wu renoncement gis nga bu la ci kenn rey même buñ naan ay boo nekkoon ci wàllu armement wala yooyu di génn moo tax France du la ko defar affaire yooyu kilifa goo bind pour renoncer wu bu matee 6 mois parce que man li ci Abdoulaye Tine wax laa gën a gëm c'est valable maanaam dañ na ci yow ñoom buñ ci amee intérêt bañ laa bàyyi ci lañ lay tontu suñ la tontul mooy dañ na ci léegi nag li gën a doon yëfu hmm, cuune cuune mooy nga koy dab di bindaat gis nga ba mu yoroon deux mille dix huit boobu ci la waroon a teg bu ci conseil constitutionnel taxawee mais yow ci la France doog a bàyyi nañ te yow bu ñu xoolee bi ñu génneewaat le seize la wala nangam nangam mais conseil constitutionnel foofu mënoo wax ne Karim beneen bi mooy woor yi nga xam ne ku woor ren ba déwén <laughs> mu jigle ko maanaam diggante wàllu yeew man li ma ci dox campagne leen ñu dem ba ensemble ñaar yëpp laay wax nag muy Barthélémy Dias di Ahmed Aïdara di kii Thiam Lamine Thiam non Lamine Thiam ak ah, ku ko defloo maanaam gis nga opposition bi ci la président assemblée waroon génn suñ daloon ku mel ni Mamadou Lamine Diallo mi ngi ci wàllu ñu jiital ko même idéologie ak yeewi la yor te unanimité lay am ñëpp a jàpp dan du ñàkk sax Mimi Touré wàllu si ci même candidat indépendant yi ay Pape Djibril Fall ak yi ay Thierno Alassane Sall buñ nee leen la Lamine Diallo moo ki ñoom doon nañ ko voté opposition am doole. ñu nekk yiñ tegoon ne wàllu ay xeex ngóor jigéen ñi lañ waroon a teg ak yooyu lañ doon campagne ma campagne Dakar campagne rappaj lu ne def naa ko micro central maa ko yore woon Touba li gën a lu waa bennoo dégg lu leen gën a naqari fu ma jëlee bi ma yeggee. Cheikh toro mi ngi may dégg non non dama ciy wax non parce que li ko xañ laay wax li ko xañ laay wax parce que ak baaxul même loolu parce loolu faawu nit ñi bàyyi ko xel li nga campagne da nga koy respecté d'accord parce que wàllu li nga doon wax naan dinañ kii te gis nga ñoom moo xalifa xalifa moom rëcc na ne naa bokk mais bàyyi koog sénégalais yi bàyyi koog sénégalais yi non non non parce que lii dafa am solo bàyyi koog sénégalais yi li waxoon sénégalais yi mooy opposition ñoom ñooy réglé kaawu Karim ak kaaw bu ñu bàyyi woon opposition. Sonko ak président assemblée bu dee la mu Mamadou Lamine Diallo ñu res ñoom ñu ëpp fa majorité ñëpp topp ci ñu réglé seen cas ni konoon tey. Karim dana bokk ñëpp danañ ci bokk te kenn du leen dégg. ku sa wërsëg nekk mais wor ren ba déwén. Hmm. ñàkk nga moom nag. bu fi jaar waaw daaneel nag yow sa man dama doon xam ne bu ñu ko validé wut du fi jaar. bu ko namoon moom bay boo nga xaar. jërëjëf merci du ñëw man wax euh, Karim Wade certainement xam nga ko. tey mbir mi jàllul sa xalaat. Euh, ndogalu ndogalu yàlla la. boo xam ne feeñ na. ci ndogalu woon ndax sénégalais yi tamit wala muy conseil. Mhm. yàlla dafa def ne man des fois damay wax yoo xam ne du neex gaa ñu bëri. Mhm. waaye su ñu demee rek ba mu sori rek dañ koy gis. Mhm. avant élection présidentielle deux mille dix neuf dama waxoon ne Karim du ñëw du bokk. wax ne Sonko tam épiphénomène la. dana tàkk ba ci kaw ba ñëpp gis ko waaye dafay fay Sénégal yëpp gisandoo ko gaa yi wax ma ki lu nekk mais yàlla def nañ event lépp am na tey. Ah, fayul de fay. fay Sonko dafa gën a ah, tàkk ma dama la wax li ma. Macky Sall moo fay fay Macky Sall ma dama ne dama waxoon ne épiphénomène la loolu mu ngi ci presse bi. c' la presse avant avant 2019. oui c' mais dafa gën a tàkk nag. voilà d' accord je l' avais dit duñ dem élection présidentielle duñ dem parce que. mooy fay bi daal. duñu dem loolu mooy fay ci yow. waaw je dis que duñu dem moom demuñu. d'accord waaw te duñu dem. keroog rek sama benn bu nekk Italie daf ma woo ne ma ah kooku na dafa nekkoon PDS nekk karimiste nekk euh, karimiste de Sonko léegi ah mu ànd ak Sonko mu envoyé message. ak bëri Morok. mu envoyé message ne ma sama waay ji ma ne waaw. mu ne yow daal vraiment jaaxal nga ma trop ma ne ah mu ne des fois da ngay wax mu am parce que la nga waxoon dafa am. Mm-hmm. ndax Karim. mooy bi ñu génnee affaire siège yooyu mu ne ndax Karim du bokk am la ma waxoon ci Sonko nag waaye bàyyi loolu bu ko répété <laughs> yaa ngi dégg. Mm-hmm. mais en fait Karim dafa foyee mbir yi parce que ma yaakaar ne soo récupéré parti bu toll ni parti démocratique sénégalais. ah dafa am base sociologique. au moins nga am vingt pour cent yu wóor ndax dernière élection yi amoon amoon na 17 pour cent. Mm-hmm. yoo xam ne Pérez rek moom moo ko amoon élection yi Pérez mu mujj a dem donc je crois loolu su ko ngay xam li nga yore kon dafa mel ni aussi affaire u naxa naxa yu ndaw ngi ci biir parce que 2019 soo demee ñu ne la indil alors euh, këyit bu wane ne yow benn nationalité nga am muy nationalité sénégalaise nga am nga nga ne am nga këyit bi mais jotuñu ko vérifier xam nga en 2019 mhm. kenn jotu ko vérifier parce que parce que il n'était pas parce que il ñu bëri sénégalais yu bëri jàppoon nañ ne am na këyit bi mhm, mais këyit boobu noo koy amee xooxoo waaye itam dimbale ma ne ba ma yeggal dama ne. déedéet naan bu fekkee c'est pas le renoncement qui compte maanaam bind. mais renoncement boo ko jotul bu defee 6 mois. selon maître Ablaye Tine te ba ba avocat barreau de Paris la affilié te li wax mooy dëgg. mais président France dafa man doomu doomu France bu ne renoncé na rek mu tontu la. wala ministre de l'intérieur mais loolu amul sens. constitution sénégalaise bi waxuñu renoncement. dañu wax ne nga nekk exclusivement de nationalité sénégalaise effectivement parce que soo renoncé itam te fekk nanguluñ la ko tam hmm. dañuy jàpp ne toujours da nga am ñaari nationalité donc dama ne Karim Wade déjà waroon na tirer foofu conclusion daw dem déposer ji parce que comme ni nga ko waxee dans les six mois dañ lay tontu konoon amoon na këyitam bu yàgg d'accord donc donc dama ne lii lu ko ci fekk lu ko ci dal lu ko ci dal moom la parce que vraiment parti bu toll ni PD PDS am militant yu toll noonu bokk ci libéraux yi wala relever un défi de Ablaye Wade wax ne les libéraux dañ far a toog pendant cinquante ans nga téye loolu fexe ba mu ba mu rëcc la loolu vraiment lu ñu man lu ma jaaxal la. léegi nag yéen da ngeen waxal Ablaye lu mu waxul waxuloon ne libéraux yi dañ fiy toog doon da doon xuloo seen biir. mu ne leen bu ngeen nekkee ci da ngeen fi toog. pendant cinquante ans te yéen ngi nii ki fi toog muy Macky saal dafa ñëw jàpp senegal yi toroxal bañ la toog. léegi nag du am ndax saay na. voilà xam nga loolu ma nga ko waxee woon ca Mbàkke. bon léegi nag. su su su taw li nga waxee an baax a des. su ndox tuuroo. Mhm. an baax des. an baax bi mooy. ci jomaay. Karim na ñëwaat ànd ak Benno. ñi bokk liggéey ah les libéraux li bàyyam waxoon. yow Macky Macky ko tëj loolu moo des. Macky defar L47 ba ah, bokk. xalaatu ko de imam ci jomaay la jëm. <laughs> xamul ah, jomaay. Euh, man de si Karim mu uh-huh. euh, dëgg yàlla man sax bu man waxuma sax ñu ne du bokk. Uh-huh. ndax double nationalité yi. Uh-huh. mais man daf ma daan yéem lu tax nit ñi nekk naan Karim Karim. Ah, man di ko tudd daal en tant que sénégalais di ko sóor man loolu moo ma jaaxaloon quoi parce que wax dëgg yàlla euh, man dama jàpp ne ci euh, jot yëpp du ci wax du sénégalais maanaam maanaam yorul jikko sénégalais yorul jikko mm-hmm. sénégalais maanaam baayam fi mu toll dëgg la sax nag baayam it lu ko daal baayam moo ko teg mm-hmm. parce que tamit baay bi daanaka doom ji rek la gis moom it. loolu natt bu ko yàlla teg la. non non may ma tuuti rek. waaw dégg nga waaw dégg nga waaw dégg nga. moom moo tooñ baayam kay waaw dégg nga waaw dégg maanaam fi ñu toll nii. baay baay baay baay baay baay bi. daanaka boo xoolee lim ko joxoon ci ay post ci réew mi daanaka lépp Karim moo ko yore woon mi yor bagage yooyu yëpp waaw saa bàyyi ma nag yow tamit. ministre du yor am am na yëf yoroon lu toll noonu. waaw waaw dëgg waaw. <laughs> waaw man dama jàpp ne euh, baay bi moom it.